waaw waaw xam nga BIE dafa nekk bureau bu am solo BIE lépp lu jëm ci exposition moom moo koy doxal mais du doon maanaam exposition yëpp BIE exposition yu mag yi exposition universelle nga xam ne juróomi at yu nekk lay am exposition spécialisée nga xam ne ñaari at yu ne lay am fii ma taxaw di wax ak yéen ñi ngi préparer exposition Osaka en 2025 Japon la war a am ay at a ngi nii ñi ngi dox ci loolu 2030 euh, ci assemblée générale bi mujj la ñu ne Arabie Saoudite moo koy def donc te yooyu yëpp ay élection la te balaa ñu lay fal aussi day am critères yoo am pour ñu far la Haïti mi nga xam ne mooy seul réew ci Afrique boo xam ne nee nañ def na de mës na organiser exposition mi ngi ko def léegi mu mat téeméeri at en 2049 lay mat téeméeri at ñoom aussi taxaw nañu postuler pour en 2049 ñu mën a organiser élec euh, exposition te lu tax ñu wax ko léegi parce que exposition aussi day dafa cher pour nga def exposition pour nga participer ci budget bu conséquent la mais pour nga organiser ko dañuy gis ay dëkk yoo xam ne dañuy pare nañ pour investir ci plus de vingt cinq millions de dollars